bëgg borom kërëm jappalé ko bu baax soutenir man xamna ci lu bari ndax wéru koor bi jot gis ngeen ñu fay demal ay plateau da lu ci bari mo koy ko donné derrière te kenn du ko gis bu lay jox xaaliss sax da koy neub ndax discrétion nekkon ko fonk borom kërëm bi ñi mujj jokkoo daaw la téléphone mu wax ma dama bëgg a pégal sama sëriñ xamna ni waxtaanal ko sëriñ Mbàkke Mouhamad moy liko gënal ma bëggoon anniversaire am manon na wo ku nek ah. mais yeen ñi tagg yanant bi la soxla yeen ñi waxtane diine ñew leen ngeen deggalal ma sama serigne mu tollo won ak wéru octobre defe naa tukkaat nañ defe naa la suma joomu ci daw ñu ñew taxawal ko ko fele ci ci gor gi mm. euh, lool di lu bu mm. lay wane ni kon ku bëggoon diine la euh, ku disponible la won boko way sax jotoo ko da ngay gis mu rappeler la wax la liko téré jël téléphone am respect la Euh, ku bàyyi woon xel bis bii ko dal tey te nekk sunu kanam ñun yépp bàyyi woon na ko xel kon nu ngi koy ñaanal di masawu jullit yi fi teew yëpp di masawu këru diina yëpp ndax amoon na relation bu rafet ak këru diine yëpp donte ku nekk xam na taalibee la woon waaye këru diine yëpp la dugganteloo nekkoon ku yaw nekkoon ku disponible ñu ngi masawu sunu rakk Bougane Gueye Dany mi nga xam ne mooy borom këram Ah, fonkoon ko lol ma xam tay limi ressentir ci tristesse diko ressentir ci consternation diko ressentir ci ay douleur ta lolou la plupart des Sénégal mom lañu ressentir kon yalla na yalla xare ko aljana defal ko njéggal defal ko yermande am nañ ci nak rafet njott ndax borom kërëm gërëm nako ta te bi alayhi salatu wassalam dafa wax mom bi gëna mat ay wax ci nit ñi gën ci ñepp nekkon ki gané aduna ci weer wi weer wi jéxagul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni iza sallatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha wa ataat zawjaha mu ni fu boobaa daxalatil janna mu ni jigéen su fekkee mu ngi julli waxtu yu juróom di woor weeru koor ni mu ware sàmm boppam ba du mooy yàlla jëkkëram képp ci la yem mhm. nekk tam koo xam ne topp na jëkkëram ci ay ndigalam mhm. yonent bi ni kooku faw mu tàbbi aljanna kon rafet na nu njort ci moom ndax boroom këram gërëm na ko tey ba tuur ay xéewal jooy te loolu yombul kon nag wane ni euh, soxna moomi yàlla na yàlla wanale ko ak yenent bi alayhi salaatu wasalaam ndax weer wi mu génn àdduna di shahru rabiul awal mooy weeru gàmm te matagul jeexagul weer wi waaw xam ngeen ni ci ñaar fukki fan yi ci la ñu war a toll te boo ko seetee tam alxamis ji mu wàcc liggéey dafa dem ba dugg ci takusan biñ ko julle ba noppi lañ ko jébbal borom ta lo borom xam-xam yëpp maase nañu ni ci yawmul jumaa lay dugg wala laylatul jumaa ci guddik aljuma kon premier guddem guddi aljuma nañ ci rafet ndort bi ci dess tam way juram bu jigen gërem nako yobante na ay kaddu wax ni xalé bu ko noppal la won ku am yar la won ku am teggin ku ko don jappalé kon nag ku sa yaay gërem sa baay eh, gërem la ah, sa borom kër gërem la ñinga dan daan sékkal ñëpp ci walu liggéey tam gërem la nga boole woon ci disponibilité yaru discrète courtoise disciplinée intelligente teey loolu yëpp boole woon na ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmel yàlla yàlla yaatal bàmmel mi defal ko ci yërmande man rarement laay ñëw ci jataay yu mel nii waaye li tax ma ñëw ci personnellement man ak moom la waaw ah, parce que yar bi ma wanoon respect bi ma wanoon musuma sàllalu sama ndijaay rek la daan wax fonk ma lool di ma woo di ma nemmeeku fi weeru koor jotee mu laaj ma lu ma xat damay wax dimbali nga boole ñu ci kon ñu ngi koy ñaanal ñaan la jullit am waaw yii nag ñu koy bàyyi xel parce que avertissement la ñu koy bàyyi xel parce que signe yu fort la parce que ki dem ndaw la quarante deux ans xale la xale bu ndaw la quatre vingt ans xale bu ndaw tuuti la kon nag ñuy bàyyi xel yi xam ne mu ngi sunu kanam yàlla dina jël mag dina jël ndaw dina jël góor dina jël jigéen dina jël ku baax dina jël ku bon dina jël borom titre jël baadoo la kon dé rek a fi nekk dee mooy dëgg moo tax am na bu mag buñ dan wax la comtesse de Noailles jigen la won ngi dëkkoon France daf dan wax ni on ne possède que ce que l'on attend je suis morte déjà parce que je dois mourir nit ki limi xaar rek lool la am te ñun ñëpp dafa mel dañu gané aduna pour xaar ci dé lool rek motax ñu ñëw fi moo tax Théophile Théophile Gautier nekkoon ci jité won Parnasse tontu won ko wax ni naître c'est commencer à mourir nit bi mu juddoo rek ci wàccaayu dayam la nekk mag ñu ñu wékku ñëpp ci ñoom it bàyyiloo nañu xel lii mag ñëpp moo demee ci cheikhul xadim wax na ni fal mawtu aqrabu wa ëddha wa amar wa baxtatan yaati wa ma an um mafar nee na dee moo gën a jommalaate ci mbir yi gën a jige doomu aadama bi da ko nee na gën cee jommalaate waaye gën cee mën a bett doomu aadama parce que surprise la ndax mu doon prévoir Euh, anniversaire borom keureum kon surprendre nako don ta tawat ji bet nañu bari waye surprise la kon dé day ñew ci mbettel dafa wex tam délu metti la ndax nek ci nit jikki jikki ku la gisati kaw lo fa jëful do ko fa fekk jëf fekk woor serigne touba firi won nako firi won nako masna wax ni waxi lamb kat yi ñi lamb seen wax joj ñi wax ndax xam ngeen lu muy wund mag ñi ne ko mbacke dimbali nu ci mu ni bo déggé ñu naan lak dem na ko ni bag warna mbam wuré wa dem na kën waxi mag dem na dañ taali lu waaye doon jaay léegi mu lamb sëñ Tuubaa na ndax xam ngeen lu muy firi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne làkk dem na koo ni mooy ku tëdd ci lalu deewam garab goo jàpp ne da koy faj day gën a gaawal deewam day dee rek loolu mooy làkk dem na koo mu daal di wax ni euh, waxi mag dem na dañ taali mooy ku dee nuyu ñëpp soppe yeeg noonu yee ci yem ko de dina na dem ci armeel yi rek bala ñoo am jàmm yóbbu la ci armeel mu ni bi ko mooy bàgg war na mbaam mooy ku ñu teg ci kaw jaagam waddi ko juróom-ñaari mètre perkal jëm ak moom ci armeel yi loolu mooy bàgg war na mbaam mu ni wuréw a dem na këng mooy ñiy robi bu ñu suuloy ba maasale baax mi jël seen loxo yi taxoon suuf fëgg raxasuwaat c'est fini loolu mooy waxi mag dem na dañ taali lu waaye doon jaay léegi mu lamb loo liggéeyoon ba demee fekk fa borom bu mat sëkk mu fay la la nga liggéeyoon waaw mm-hmm. ah, kon avertissement yi bari na mm-hmm. yàlla nag moo ko sañ di ko def yàlla na ko yàlla yërëm yàlla mi ko jël moo ko moom sunu boroom dafa wax ci alquran wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi wal jooxi naqsin min al wal anfusi wa samarat wa bashiri sabirina alladina ida asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ci suratul baqara yàlla nee na dinañ leen natt ci alal nattu leen ci ay bakkan nattu leen ci mbay nattu leen ci lakk nattu leen ci xiif waaye nattu leen tam ci bakkan jël ay nit mu ne su boobaa yenant bi alayhi salaatu wasalaam yow mi gën ci mindeef ma yónni la ci ñoom na nga leen béggale ni ñii muñ ñooñu laa àndal dinaa leen fay sama yërmande dina wàcc ci seen kaw boo delloo ci saar wu mel ni sóotu luqumaan nga xam ne yàlla tëjee wax ji rek mooy am na yooyu moom rek a ko yoreel boppam jox ko kenn bu ko joxoon nit nit sonal nit waaye yàllaa ko téye dafa wax ni inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu l xaysa wa yaalamu ma fi l arham ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم قدير واخ دي جيخ تاك نانا مان يالا سي مان لا نيك بيرو جيجن لي مي ورا ام سي مان لا نيك خام خام بي واتيا تاو سي مان يالا ما خام بيس بينتي كاج لا كوي تخاوال مان يالا تام سبحانه وتعالى كيب ما خام نيت كي لي مورا فاغو اولك بن بكال خامول فومي ديري يالا رك دنج كومبا سي ليب خام ليب كون نك جوخ نانيو avertissement mag ñep bind ci Cheikh Seydil Hadji malik bo demé ci téréem ba tuddu ba tuddu zajrul qulub muy téré jàjj ak wara waaraate defar xol yi wax na ca biir ni hali dëhru intaaral ghurab yatib wa jaa rasulul mawti baadu yanuubu araaka nasiital mawta wal mawtu mawridun falil kulli min baxril mamaati nasiibu waaw nee na kon ndax jataay yi neex na ndax dëkk bi neex na ndax vie bi neex na su fekkee saa boo xamee ni kawar gu ñuul gaa tuxu gu weex gi di ñëw dundu àdduna ngi jeex dee di dikk dee rek mooy rootukaay bi te boo ko fàtte fàttaloo tam di root kon benn jataay neexul dee la ñuy préparé waaw kon yàlla na yàlla xaari moomi aljana defal ko njéggal defal yaayam xolu muñ muy soxna Fat ne ma xam ko bu yàgg booba jamono coon sekk ngay nekk Pikine dëkk séegul sax fii xam maamam maamu xale bii di bay Cheikh sek nekone policier ma xam ko bu yag xam tam ay mbokam ñëpp ñu samay xarit ku melni ma penda du ñu umpante sama yoon bi waroon nañu gisante ci Paris way dama xaw xat ah, ku melni Ousmane sama lepp la wa ku melni Ablaye Bamba ku melni cion mi dem dem ci yalla ci keur gi ñom soxna màgget ñom bayang ah, ñom ñep sama xarit lañ kon suñu jarbaat mo wacc liggéey ñu koy massaw ñep way diko massaw particulièrement bogan xam nañu mettit bi muy ressentir yalla yalla defal ko xooru muñ ndax diko soxna ci fété wor diko massaw wa seen TV nak d'une façon générale ndax ñuy liggéey ci kër gi ñëpp amoon nañoo alaaxa bu rafet mu nekkoon une directrice waaye nekkoon une mère de famille boo xam ni da entouré woon personnel bi leen jàppale yàlla na yàlla yërëm ko jéggal ko yéen itam yàlla fay leen ndax fekk gulit buy dem ñu koy denc ci këru dëggam nga sol sa dàll dox ay jéego tuyaa ba ju réy moo ci nekk ku ko xamoon rek do umpale tuyaa ba yi Seydina Jibril alayhi salam bi ko yenant bi waxee yan nga gën a bëgg ci tuyaa ba dani di ñëw ci yow ak di taqoo alhamdulillah ak néewu julit bu ñu rabi ma dem fekke ji convoi kon tuya bu jure mo ci nek te julit yi bu ñu matee ñeen fukki ci bërepp ñaan rek yalla man na nangu ta tay këru diina yépp teew na fi suñu kilifa gu mag gi cheikh madani tal gis ngeen ko mu taxawu ko gis ngeen seigne basirou khadim awba gis ngeen seigne cheikh ahmadou bamba mbàkke mu seigne abdul ahad ubayd rabbih waaw cheikh eh, ibnu cheikh yi ubayd rabbih rabbihi jang jàng fi teew taxawu ko julé ah, yoy yépp dajé ah, ak jabootu seigne cheikh gaynde fatou seigne ismaila tew ta xam ngeen ni bogan mi borom kërëm taalibe sëñ Mbàkke Mouhamad la sëñ Mbàkke soxna loo man nii la soxna si daan woo ma koy defal ay waxtaan ci sëñ Mbàkke soxna loo kon soxna moomi ku baax la ba dem yaru na dal na teey na am na sutura bëggoon na boroom këram nangoon naa liggéey bëggoon na diine di ko bàyyi xel yàlla na ko yàlla yërëm ñu ngi koy masawu tout le monde di ko masawu mbokkam yëpp di leen ko masawu yéen itam jërëjëf Fadel jërëjëf jërëjëf